jaay sama gars yi lii nag sama point de vue la quoi parce que man bu suuf seet ay trois six du matin ma koy déglu quoi parce que man guddi gi du ma nelaw man dama tàmm loolu quoi guddi gi ci laay def lépp mais daal li ma bëggoon wax mooy dip génnalal booy seen album parce que li nga génne nii du pour fii quoi li am seen lii ay niveau Fada Freddy la ñoom 50 Cent ay TI gars yi di play with a band yi am seen parce que album bi c'est musical ko cuuna yi parce que loolu la xam ay punchline dëngëj dëngëj yow nag da maturité je comprends lu tax nga sol kos correct non je te jure image bi da ko wane ci bi quoi musicalement da nga ñor da def ay kii donc gënal booy seen album may leen benn dib quinzaine quatre wala dara parce que ils ne peuvent pas suivre non non mooy au moins de 18 ans lii faut nga xam musique tu moo tax ku fi ñëw chroniqueur naan punchline bëgg nii t'as rien saisi le karabalik di joué ñaari son amatu fi place léegi mu dagg rasta yi je te jure Dip a mûri ni mu mûrir ni mu def cover bi noonu la dafa ñor xom ci musique si ku xam musique laay wax nag de